waaj dafa wax ne dafa yëg ni saar dafa am tuuti tuuti jafe saar mooy société bi nga xam ne bi mooy defar euh, gasoil bi ak euh, essence bi pour mu koy mën a jaay fii ci Sénégal te mu nekk ci Mbar loolu dafa am tuuti jafe-jafe pour mën a am pétrole bi ñu jëndee bitim réew nga xam ne moom lay transformé defar essence ak gasoil ak dem ci centrale Sénélec ñu wax ne ci li nga xam ne difficulté anam wala tendance yi nga xam ne war na indi njàkkar parce que loolu bu doon surveillé ba bés bu jot ndax su essence amul gasoil amul lépp dara su su sax du lépp mooy taxaw ci réew mi loolu point bu am bi nga xam ne amul bés bi nga xam ne duñu ko surveillé léegi bu ñëwee ñëw rek si xalaat naa ba xam fu mu information bu mu mujj bi jot am na benn bato bu ñu a ñaax loolu moom ci ci marché bi la ci

SMS wala wala gasoil mu gën a manqué ci ci ci réew bi loolu point bu ci am solo ci programme bi mooy ñeenteelu point bi ba tax na ñoom ñoo xam ne man la yàlla mu yore loolu mu ci bàyyi xel bu bu baax a baax kon am nañu yaakaar ne duñu am problème ci ci ci ci côté boobu yow moom beneen bi nga xam ne ci ko wax ni affaire bi mu tudd pour ci ci bi pour xool ñuy def ba fu mu nekk moom ñoo ko mën a wasaare dina nekk ci ci ci guddi gu bët bët dina nekk ci ko indi def lënd. crise ko yore mu bett mu baaw loolu te keesu état bi moom mën ko waxee rek benn la. ceebu tax bi tey président moom jël bu doon jël fukki milliard dina koy dund def ko nit ñi fukki fukki milliard ak ci facture courant rek baal ko askan bi jël ñetti milliard ci facture ndox baal ko askan bi jël fukki milliard ak ñaar jox dispara bi maanaam budget boobu bi nga xam ne mooy continuer di fay bourse étudiant yi mooy budget bi continuer di fay salarié te loolu yëpp daal bi ci parce que dafa war ci bi ci taxaw tamit soo duggee ci affaire bi leneen ak leneen yaa ngi yaa ngi joxe fii ndimbal lu bari waaye yaa ngi seen état bi doole jafe moom ci mën na sukkandiku pour mën a def ndimbal boobu donc loolu ay arbitrage la yu yombul donc mu war ci bañ a gaawantu mu war ci bañ a yàkkamti d'autant plus que fii yokk moom kenn bëgg ko dégg soo wàññee mu ñu waay mais soo yokkee mu ñu dégg donc bala ngay dugg ci mbirum wàññi bi ñu ne la nga ñu wax dëgg ñu ciy def manque mu tey ci teel na ndax contrat bi fi mu ne kenn xamul fu mu jëm ñetti fan ci gannaaw ñu ngi ñaar fukki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 pourquoi bu ñu woyofalee askan bu comme tey lu ñu si indil tey muy facture courant ak ndox yu leen yu